mbokk yi ñuy seetaan nuyuwaat nañ leen ginnaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi ñu ngi fii ci Hisnul Abrar di tooli Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne mu ngi nekkee ci biir Jolof ginnaaw ranch de Dolly mu nekk tool yi nga xam ne door nañ liggéey bi depuis euh, lundi depuis le 7 mars 2022 nga xam ne taalibe ñëw nañ tey ji ñu nekk ci juróomi juróomeelu fanu liggéey di liggéey bu am solo boo xam ne taalibe yi bés bu ñu xëyee ñu ngi ciy def Pastef ñëw ci tool yi ngir euh, jële fi li nga xam ne moom moo di ëkk yi euh, setalaat tool bi gor garab yi lépp rek ngir waajal tool bi ruuj ko defar ko ba di nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee moom sëriñ Bassirou Mbacke moom solo Xaadir mu mën koo amee noonu moom moo tax euh, incha allah gis ngeen taalibe yi nii suñu ginnaaw nga xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi nga xam ne naajagul sax euh, daanaka man su ma xoolee li nga xam ne moom moo di euh, suma montre daanaka fi mu toll nii mi ñu ci ci 9 vingt 24 nga xam ne xëy nañ bu yàgg. liggéey bi nii lañ ko koy wéyalee nga xam ne dañuy dem sax ba yenn saa yi añ sax daanaka mën na leen fekk ci euh, tool yi lépp rek ngir bëgg li nga xam ne moom moo di bëgg bëgg sëriñ bi ñu defee ko ni nga xam ne noonu la ko bëggee kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen ñu dugg ci biir tool yi xool ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, taalibe yi niñ nekkee ci biir euh, liggéey bi waaye jël réaction ñenn ci jëwriñ yi nga xamante ni fekk nañ leen fii ñoom it ci liggéey bu am solo bi xam naa kenn ci ñoom sax sëriñ Mamour Mbaye mi ngi nii Euh, tey moom xam naa ne euh, ku la xool du ne euh, animateur bi la gis wala présentateur bi tey taalibe bi moom moo ñëw ci tool bi liggéeyal Serigne Touba ndax fépp fu taalibe murid nekk rek ambassadeur Serigne Touba la fa. rawatina bu ñu ñëwee ci tool yi nga xam ne dañu war a liggéey Serigne Touba bu baax baax ak casquette bu ñu mënti yor Mame Mor bi nga ñëwee ci tool yi lan nga yëg. jërëjëf maa ngi ziar bu baax a baax mboolem téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi. yàlla dogal na altine ba tey wax nga dëgg noo ngi fi waaye danoo namoon ay tool lii noo ngi ko gëj a def ca jamonoy Serigne saaliw xam nga sax Serigne Cheikh magi sëñ Basirum sëñ Abdou Khadir nga sëñ Cheikhum sëñ Abdou Khadir Cheikh moom Serigne saaliw ko ne gis ne ko ni ñu ngi ci tool yi waaye ñoom tool yi ñuy nekk mooy dañuy ruuj dal di daal di bay woonu ci ndéqi wooñu ci jëri wooñu ci ngóob waaye gor gor moom ñu ngi ko gëj a defee ci jamonoy Serigne Saliou waa mu mel ni benn benn benn mbir la woon bu ñu ngombe woon ba Serigne Bassirou Serigne Abdou Khadir moo tijji ngomb bi tey boo gisee murid bi ñuy ñëw fi nekk ko dugg ci internet bi li ngay kaas mooy lu tax yëguma ko xoolal lu ñuy def léegi machine da koy def mais lu tax murid yi indi wunu machine ne ñoom ñooy ñëw fi mu ñun ñii ñëpp bu loon a gants yi yàq suñu loxo yàqu na mais sedd bii mu nu indi ci lii la mag ñi amee ngërëmu Sëñ Tuubaa ñun ci loolu la ñuy sàkku di déglu ndigal rek suñu waxee bay ma bay suñu waxee liggéey liggéey ñu déglu ci suñu bay dàng waxee bay leen ñu bay wàcc leen ñu wàcc <laughs> ñu déglu ndigal rek taal bi moom ndigal rek. suñu Bass Abdou Khader allah taxawaay moom rafet na lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax rafet na lool ci liggéeyal suñ tubaab bi waaw macha allah moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi waaw. bu ñu demee ba mujjum jamono nga xam ne jamono ji dafa yëngu. ñu lay xëyloo ci liggéey suñ Touba di la ci gontuloo kon war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax moo tax ñu ngi ñaanal eh, suñ Muntaxa mu yàgg fi loolu di ñaanal suñ Basiru mu yàgg fi di ñaanal suñu jàmbaar muy Cheikh a Diouf yal na ko fi yàlla yàggal muy liggéeyal Serigne Touba ñu nekk ci ginnaawam di ko liggéeyal waaye xam ne sëñ Touba morom rek te xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Basir moom mooy lépp moom mooy Serigne bi rek ci ñun te mooy suñu bunt ci Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal mu yokk yàgg te wér waaw ci kàttanu suñu borom ak tawfeexam te xam ne fii ku fi ñëw rek maam sëñ Tuubaa nga liggéeyal ndax moom sëñ Tuubaa rek la léppam sëñ Tuubaa la bëggam sëñ Tuubaa leer na ñëpp te xam ne ni moom léppam sëñ Tuubaa la moo tax ñu teew bisam bi te duñ ko yamaleek len waaw fu mu ko woote ñu jëm fa waaw en tant que taalibe daal wax dëgg yàlla sant nañ suñu borom ba mu ñu dimbalee bañ fekk liggéey bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bañ fekk liggéey bi di ko jëfal yàlla nañu ko nangul ci mbaaxam ak tawfeexam bi yàq alxuraanu karim yàlla na yàlla defal ko tawfeex guddal fanaan wéral cëram bi yàq alxuraanu karim waaw sant nañ bu baax waaw manam i santo sign ismaila ino fog sereer waaw ndax kat i njegay ka andoona yee o leŋ jegiran i mbar o santito a roog to i ndama o layaa ba Ibrahima Sene layu le ka faak te refo xane kon i mbara mbetandoox o faak laam xane o leŋ ke leŋook mbi'una leŋ ku ta re'na ranga kanga yok bo nene we eetna Serigne Touba xe dara den xa tax ɗune ka liggéeynoogi Serigne Touba kon fat i ndakwiid liggéeyano Serigne Ismaila ngir i ndaaba faak kene te refo njiriñ santo Serigne Ismaila nqeɗon o fokatan no qol Serigne Touba no Serigne simale rek o ta jeg tu yakar in xane o feet o leng kut o leng kut nda da Serigne Touba jambarane nda da Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah kaddu yooyu daa mel Serigne Mountakha Ndiaye moom xamu xam naa naa la ko tekkil incha allah <laughs>